waaw père dañoo ñëwoon tey pour seet si la pour laaj la ci affaire yooyu en tant que dès le ba léegi nii. bi ngeen commencé ba léegi sama làmmiñ bi si ñaan la dëkk daa comme yàlla def na rek léegi ñu qualifié ngeen ba préparé dem final yàlla mi ñuy tuuñ yàlla na leen yàlla may coupe bi sutural leen parce que fu mu ne ASC bi bi ma ko créé dafa cinquante cinq ak léegi ñaata at la <laughs> yàgg na te lii ngeen di def nii toujours moom lañ doon def waaw toujours ñi nga doon def moom ngeen doon def e yàlla mi dara tewul nag eh, yàlla yàlla dimbali rek ba li ñuy wuti sa terrain ba yàlla dimbali ñu si si daje Seydina Mouhamed naal so xol sedd na fu mu ne nii te dama gu len pen parce que ni ngeen di def ni ñoo sama buntu kër ni lañ ko doon defé toujours compétition bu ñu am bu ñu final ak ak bu munti doon ñom dañuy ñew fi ci bu kër gi légui la rek jamono mo nax da fi lañ doon toggé di def lepp fi xalé bu ñuy football yi ñu gënal leen seen bol yi ñu tibal leen ñom ñof ñuy lek yalla dimbal leen bu ñu dem bu ñu dem rek ba ñew rek indi li ñu soxla ñëpp benn lañu yaa cosaan cité cité ba gazelle cité police euh, ñun ñëpp benn lañu ak bokk jëf bon ñu nag bokk jëf nag bëgg naa ñu football final boo xamee ni bon li si jiitu mooy dama ci bëgg jàmm ak salaam waaw nu ñu ko waajalee ñu footballé ko noonu mu bañ am benn problème waaw te xam naa ne du ci am parce que gëm naa ne ñaari équipe bi am nañu déggoo bon te am nañu entente daal macha allah gëm naa ne daal jàmm rek moo ci am incha allah Papis yow noo gisee ASC bi ak ASC bi final mu dem nii noo ko gisee yow ko waa yow. ah Siteu Siteu Ba moom amul leneen lu dul di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci final bi incha allah parce que tamit waa bi métti woon na affaire yi xam nga rek gars di taxalee ba yàlla def ñëw final quoi. borom daal di ko séddal suñu borom affaire yi amul leneen final amul loo xam ne dañ koy ñëw pour jouer ko da ngay ñëw pour gagner ko te nag yàlla nag comme te xool yi ànd ñëpp doon benn ñëpp a jàpp si ASC bi di si góorgóorlu gëm man daal ak un peu de sens rek yàlla mën nañ defal ndam te incha allah sax dañu am ndam parce que xol yi ànd nañ benn gars bëgg nañ ko tamit xol ñëpp ku nekk yéen na sa morom jàmm loolu moo am solo le reste yëpp bopp terrain bi nga dégg xam ne koy respecté waaw dugg si terrain bi wane na yow yaay kan waaw am la rage de vaincre wane na yow da nga bëgg gagné match bi avant tout soo wanee loolu le reste yëpp day yomb si yow quoi te yàlla a nañu may ndam daal incha allah ñun moom pare nañ lépp instant yi moom jour rek a des lu ñu war a def yëpp def nañ ko ñu nag bokku jëf moom ay doomu nday lañ man mii di wax nii am naa fa deret am naa fa mag buy sëy foofu mooy loolu instant yi inaa daal li ñaan ñu gañe ko si fair play dox indi ko fii feetu ko daal nañ yaa gën a xam daal di yox la jëli ko rek te ku ma dóor dina ma al bi waaw yaa ma di sant yàlla rek di féliciter joueurs di leen encourager di leen wax ne ñu ngi seen gannaaw euh, te yox la jëli ko la ñu wax ah parce que amuñu lu ñuy maye instant bi final la ñu wax fet la mais tamit jël ko si la boobu. avant tout euh, ñu ngi remercier télé bi pour le déplacement qu'ils ont fait ñëw assister à notre entraînement c'est de Sotiba bon je pense que lii bu ko gars yi gisee rek euh, xel yi war na dal quoi parce que équipe bi euh, préparé na préparé na préparation boo xam ne c'est à ne pas dire quoi vraiment xanaa dal di ñaan yalla final bi ñu dem ci ak jamm jé ko ci jamm am nga ñu remporter coupe bi indi ko fi bégal supporters yi bégal sympathisants parce que lii nii ko gis ça prouve que c'est l'objectif qui détermine la force. donc euh, bolo nañ nous sommes unis donc mo d'ordre bi la la dem gagné coupe bi wat ko di remercier di profiter aussi de l'occasion de féliciter ñep ñoo xamné tay japp nañ ci du début à la fin. donc dañuy ñaan yàlla rek final bi ñu indi ko fii nii bëggal supporters yi bëggal ñëpp. laa di am contentement rek toog nañu ay 5 ans yoo xam ne demuñu final kon mbégte rek lañ ci war a am di ñaanal suñu doom yi yal na leen yàlla may ndam. si buñ ci yeggee ak jàmm ak salaam vendredi di leen ñaanal ndam rek waaw. incha allah ndax moom xam naa lépp rek dañuy ñaan yàlla rek. ba yàlla yóbbu ñu sa ba rek ñu jiyee ko si fair play rek ndax aduna moom lépp loo gis fair play la ndax sport moom toujours fair play moo jiitu lépp nag waaye nag yàlla nañu yàlla may ndam si ci kaw boo ko jëf incha allahu rabbi final bi nag ñu ngi koy préparé ci fànn bu nekk côté bu nekk joueurs yi ñu ngi def li ñu war a def dirigeant yi ñu ngi war def li ñu war a yi aussi ñu ngi def li ñu war a def amuñu dara lu ñuy bàyyi bis la boo xamante ne dañ ko séq ak suñuy nawle ñu ne ñoom dañ koo bëgg te duñ ñu ko gën a bëgg parce que lépp lu ci gor wala def doomu aadama war a def dinañ ko def pour gagner match bi incha allah